wax na nga mattaale yi ci moom dina waa ci ci say dégg wax dëgg te nga defaral matt gi soo demee ba ci xettam mu ne na ko takkoo nga matt ba mu dëgër Sayyid ibnu Naasirin boo jaayanteeg moom ba def ko sëriñ na nga ko ngëb bu baax te doyloo ko ko gis rek sëriñam mooy ibnu Naasiram waxtut na nga sippi rixaalaka say laxas fii daraaku ci dingireem mulqiyan biroom nga daa ji sànni abadan faw alayhi ci moom sarasiral musdan ji di diis diisi aji dimbali sa bagaas yépp daal sooy boo nga sippi ko ci xëttam lu ne nga lépp loo ko ci dimbale waaw kay mooy rek na nga ko doyaloo sa biir lépp itam na nga ko jiital hmm. wax la na ngay gaaw hmm. hmm. bi kulli amrin ci lépp ci sa mbir wax la wax la na nga summeeku ilayhi jëm ci bi kulli amrin ànd ak lépp te tam boo demee ba mu dee ak moom ak luñ lay mën a tuddee hmm. loolu moom bëggu gisati ci kanamam hmm. xamal ko bëgg jëriñu ci moom rek ndax loola doxut sa diggante hmm. nga soxla ko kon jël nga dëgg wane ci gannaaw moom wante kun na nga nekk bi hadi yi ci hiiram mi la sa bii de kem gune al moom ke di gudaa nam da ngay mel ni gën a ngi nax rek hmm. fekk booy naxal hmm. da ngay mel ni gën a jëriñ rek hmm. laata jasan bul lotta han ruwalit ko wali day di mu naata mu ne jamono an technique ku baax mën a jëriñu ci moom lam bañ ko jëriñu huloote ku ko nangu te tus yaa taw soo nga ka mel ni yës koo dana mu tawat asada mar xawla zilaali fukki ngay ndox mu sell al ngir wadi may rojuwaay nekk ci pegg mu sedd mu sell ko jàmbat mar ku la yërëm ci métti mar yi mu lay yeddee jàppeñ loolu nekk yi am na ñoo xam ne jamono ante ñoom danga bëgg seen sëriñ xaw la Sendiri saya cerau ke Inara itu. Aman Tuhan ya dan kita sama Tuhan. Karena saja dan dan juga. Anu dari sini nanti. Kebiasaan sendiri. Kalau di sini ini kau sampai ya sudah dengan mutawat. Apa gambar? Kalau tidak itu kau nggak mau musal musal. Alhamdulillah. Kalau ada musyawarah. إذ غلما وبدر طالع وسط السماء بجنح ليل مبرد أو كالذي فرحت بطون جبونه مرها وإسمدها لديه بمقلد فهو الذي يحدوك من نفحاته بجدا من الأنوار غير مطرد ولا غير مسرد ويصيغك الأقبال رحبا ممرعا أجنابه تنداق كل مسند بحر متى تقبل إليه لا تجد خلف السؤال ولا هرير العقد mu ne ngeen la ban lot bañ a taaxaat gi ndax kon boo tardee li ngay mel mooy kuy jàmm ndox te nekk ci fekk yoon de wu neex wu sell aw yot sa kii wala muy tawat du la man lëndëm ay lëndëm wa badrun te weer xaale on aji fenk la wasta samaayi ci digg asamaan bi jun xi laylin ci mbaggam guddi mibradin guddi gu daa ji set wala weer wi fekk jaww ji leer nañi nga nekk ci benn rukk boo xam ne fay ko hub ngelaw dikkeewul la fenn nga naan ase lëndëm ase lëndëm ase lëndëm te jaww ji fenn dell ak leer xanaa yaa tëju rek suba du ci jaww ji du ci weer yi waaye ñëw mi tëju ba xamoo ne xew la nag waaw su fekkee ak umpale sa bu gàtt dañ lay xen ba nga jamono wante ku baax man lay jëriñoo ci moom kooku baax du ci ku baax te du ci sa dong la loolu nag ba ko nangu dégg nga seen baax a baax wa diinu mabniyun ala tabassuri falyattaqabbal dul hijaa wal yahdari mu ne diina dafa lay settantal ab jullit war na nekk dox bi wal yaarifan zamanahu wa ahlahu fa ilmuhu bi daaka akadu lahu danga war a xam sa jamono xam sa ñoñ jamono xam ña nga xam ne boo jaxasoo ak ñoom da nga jëriñu ci jaxasoo ba su ko defee nga jaxasoo ak xam ñi nga ne boo jaxasoo ak ñoom da ngay loru jaar nag ñoom nga xam booy jaar bu mujj si nga bëri leen di daal la laaj waaw waaye tëju ci benn pugu rek tëju ca tëju dara lëndëm gi wër la ku ne leer ne jàmbat lëndëm alors loo leen xam ne yaa génn rek yaa yëgul li xew rek yaa yëgul li xew waaye lëndëm kay defu ko waaw gis nga bu baax a baax waaw sa bopp rek ak it tëjoo gàtt rek ak yow ati ci jamono rek taxa taxa nga fas ne kenn baaxul ba jëriñu si ñu baax ñu tële di si ñu baax ñu ci yow la loolu bu ko nangu waaw. te aw yastaki wala muy tawat zolaman ay lëndëm wa barrun tewe xaare am aji fenk la mu waxta sama ci digg asamaan bi jon xilay leen ci mbagam guddi mu la dem gulaa ji set aw kalladi wala mel ni koo xam ne xarihat góomu na bu doonu jubooni yi biri mbati bëtam marahan ngir booy wéyit mi du aat ci ngaram na day nekk na fa moom bi meqaladin ci ndox wala xamee tungel mu nekk ci dabu gaayam jami jege la ngay sàggalee tungelu ba say bët mujj da booy di def góom moom de waaye xam naa ñetti suukar yu booy ak yettangee gàttañlu moom dana jaam ak yettangee kayal moom la mu ngi ci sa teg xamul a takkum jël tungel bi yi yaa moom ba def góom moom de waaye ñetti du ak yàlla ngay tayal moo la tayal rek rek waaw ñu ngi demoon a te njëriñ yu baax tayal rek rek rek rek bu mu la tey njëriñoo ci nga xamee ne bu mu nga jaxasoo aw kàlla di wala koo xam ne xarihaat guumu na bu doon jëfooni hii biri batigatan marahan ngir booy way mi do a te ngelam la day nekk na fa moom bi miqlatin ci ndab kooku ibnu Nasir alladi mooy koo xam ne yax du ka dana mu la may dana mu la may dana la dundalee dana la dundalee min nafahaatihi ci may bi jatan ci taw min alwaari ci leer yi xayra musarridin borom duumu aji réewal mu ne Sayid ibnu Nasirin soo demee ba jaxasoo moom lépp looy soxla pour deferu rek da nga ko amee ci mayam la xam-xam di defar ci nit xam-xamam dana ko defar ci yow la garante di defar ci nit garantam dana ko defar ci yow li itte bu kawe di defar ci nit itteem dana ko defar ci yow lépp ma doy nee na foofu alladi mooy ki nga xam ne yax du ka dana mu min nafaatihi ci mayam bi jëdan ci taw min anwaari ci leer yi xayra muxarribin gën dumaa ci néewal da waaye su yeboo kese dina mu la neexalal ala sala mayi rahban mbir moom aji yaatu la moom raxat mbir moom la ak naafu woo ay wàllam in daaqa bu xatee kullu musannatin wala kullu musannidin bépp aji nay mu ne suñ demee ba ku nekk de bokk doon lam am ndax jafe-jafe la da nga koo fekk muy kërim bi daan ñëw de su neex bu ku nekk da bokkaloon la xam ndax jafe-jafe la da nga koo fekk muy këriñ dinaat ñëw leen li mu bëgg a wax mooy bu jamono yàqoo mbir yi lëj ba lu bëri ci nit yàlla yi xalaata duñ ànd ak kenn xanaa kay bu ñuy làqu ba nga xam ne li ñu yor moom li ñu doon yàq ci ñoom la ñoo bu déwén ak moom boobu la ko yu gën a def muy yërmande ci ñëpp nag mu doon kuy defar ñu xëy na loolu mooy leen bëgg a wax ma ne mën naa am loolu mooy leen bëgg a wax waaw mën naa am loolu mooy ko gën a ne mu leen neexalal xanaa balaa yi may balaa may may yu neex xanaa ban mbirum aji yaatu la mun naa am mbirum ku ñu naatal la ak naa ko ay wàllam nga fekk mu seen daaqa bu xatee kullu muzannadin képp ku ñaar sanee nay ci jamono boo xam ne ñu bëri dinañ bokk. mais eh, baxrun géej la eh, mais comme géej la xam nga dinañu koy jëlee nekk lay jëlee yëpp moom mooy lee waxee woon na ci kii ndox mi ñu ci denc yëpp su dee nga kenn su dee ñoom di denc di denc jëriñ ku tali wala ku bëri njëriñ ñu gën a leen ku yàlla indi yaram ñu ko nit la su mu nekk jëriñal ñëpp wala la difaa wallahi nasa baatahum bi baatin la fasadat al ard لكن الله ذو فضل على العالمين loolu sama borom léegi nu mu jëm ñoom ñu te xam nga leen ñeent kon yëpp day yàqu ay baax loolu ci ñu yàlla baaxee di léegi xam ne seen def nekk na sabab bi ñu daan ñu ko mës wasalaay yu mu riyaat sama àddina rek benn mais baax noonu géej la bu xam ne mata topp mbir yi waxtu woo jubloo ilayhi jëm ci moom laata ji den ngay fekk ku la fas suaali coono yi laaj mu ne jëriñee kan la bu xam ne du daf lay sonnal daf lay du ko xam ne ma nga nekk di laaj di laaj di laaj yaay mu daf lay jox mel ne kenn lu bëri na waaye du ko gudd balaa ngeen ci sonn ci jàll ko ci sonn ci ñaar bi xëy na bu ndox mi di kee jaxam mooy say di mu ñor di ne moom ci ne lu ko jëriñ du ko teg coono moom yomb na ndaxte ci jël ngay def ku la ko soxali coono yi laaj wala xëy di di tàggan dawal daw kat yi te doon gudd nit koo xam ne dangay ci guntam ay law kat dina xam ba doon ñemee xam waaw gudd nit koo xam ne dangay ci guntam ay law kat dina xam ba doon ñemee ak yëpp amu ja dina bu baax a baax dut ko lay sonnal dut ku tëñi ku naqaree jox te loxo laaj ma mata yu neex ñu jàng wéy bi ci wa mata yónnee waxtu wu yéesalee ay gawar alayhi ci moom fan dana soppi ni wëññeeku xaaru ñu mujj mun a xam de yësuwaay li lu footi ñaar gan ñaar ko fati ña damay mu ne saa su aw nit yéesalee ci buntam ba mu fajal leen seen soxla la ñoo ci moom dana leen hëpp ñoom kum ci maatoo kum dal rek ay nit ñooy yesal ci moom muy daan fajal soxla ci ci li mu mooy indi naag ren képp moom ci yàlla te yàkkamti wuroo àddina ba liggéeyam pare ci yow waxuñ yow da nga defaru waaye foo mën a dee nekk ca defetkat ya ngay bokk loolu mooy maanaam waaye nag bokk bi nga xaaru may wi dégg bu baax a baax boo ko defee jubbee jullikaat yi itam xam ne moom ngay xam rek xam nga da doon apprenti wu yéen bu wax ne dafa bëgg mu jàngal ko lem ñu soobu si njàng ba mu dee ba mu dee man xob ba mu dee man xob te lem gi nekk noonu xam nga kàmbaaru julli ba mu xobu lem la bi mu ne xob na ko patron man damaa fexe mu ne ko attel na ko man de léegi laa na ko wala yem ba léegi de waaye ak boo ba dagg te dagg di bon ba nga tolloo xam ne ñàkk a jot rek ñàkk a jot ga moo rek waaw léegi bu baax a baax ñàkk a jot ga moo caa feeñ rek xanaa wa mata yoo ne waxtu wu yësale xanaa bon ay gawar xande yi ci moom saa su aw ne dikke yësal ci buntam bi fan sana fas ñu wëññeeku ñoom moom ba mu xewee da saaroo ñi mujj ñoom mun a xam de yusuwaay li mu booti ñaar gan ñaar kum nga dañu daway jublu kum mën a dañ ñëwoon kum daal gan ña dañ koy yus moom na ñu ñëwoon ci buntu mu naafir xam kum daal moom la loolu la nit ñi di yësalee ci buntam mooy ku ànd ak moom te yaakaar ci wóolu aati la ba lëggéeyam pare ci yow waxuñ sax yow da nga defaru waaye foo mën a nekk ci ñuy defar ngay bokk loolu mooy leen bëgg a wax rek loolu mooy maanaam bi xam nga dégg ko wala dégguloo ko ah loolu dégg moo leen li mu bëgg a wax li mu leen bëgg a wax baax na boobu dégg sarafan li darata itasamma bismiha nasaban wa iswaafatu awwala mawlidi wali xarbina ida kaana minhu arduha wali saa'iri dunya bi haada almaqsidi bal lissamawati lola id kaana min ha ruhuhu faltaadu minhu wa tamjudi shamsu samani wa saaduha wa malaaduhu wa jadal mahili wa xunyatu almustarfidi فالدهر نور ليله ونهاره من نوره معط يد المتعبد حتى توهم سبع أمات له زوجنا من روم بسبعة أعبد kon ñu jàng loolu ci sëriñam di Sayyid ibnu Nasir ci lay wiyaat mu ne sarafan xoona ma tedd nga seet leen tedd nga li dara te ñaal dara ittasamma bi mu tuddoo ibnu nasirin bismiha ci turu dara nasaban ci askan wa it waa fadru ak bi mu ko awwala mawlidin ci njëlbeenal juddu mu ne ibnu nasir ndamal dara la ndax fa lay askanu ñu ne dara yu su ko demee dara yu boobu moom la dara doxee na turam ci buñ ci defee yaxu nasab da ko ca melal moom Sayyid ibnu Nasirin loolu ndamal dara la ak itam tànn ki ko yàlla tànn moom dara mu nekk maqar wiladati Sayyid ibnu Nasirin loolu itam ndamam la ndax mooy su su dara njëkk a laalante ci àddina biha niita alayya tamaimi wa awwalu ardin massa jildi turabuha mu ne ko dara boo ko daal ah dëkk dëkk bañ ma daan takkalee sama gàllaaj ya suuf sa nga xam ne moom la sama der njëkk laa la der ci àddina dëkk la boo xam ne du ma ko fàtte mu ne ibnu Nasir bi wax ci ko doxal lool ci àddina bi dara rek lay wax loolu moo tax ndamal dara la waaw ah, bila sun biha nii alayya tamaimi ay dëkk la yoo xam ne fa lañ ma daan takkalee gàllaji gune wa awwalu ardin massajin bi turabuha tey da mooy suusu suma der njëkka laalante ci àddina mooy loolu saraf la ci dara sarafan wana ma tedde nga li dara te ñaal dara ittafal naa ba mu tuddoo um seydi munafirin bismiha ci turu dara nasaban ci askan way waafadu ak bi mu ko dikkalee mooy bi daa dikkalee ibnu nasrin bi mu ko indi ak wala mawlidin si ne dana ibnu nasirin ci la ak itam li nekk maqarru xar bu ki nga xam ne ci moom la dara nekk war naa mën a damoo dara moom itam moo tax ne wasal leen tedd nga li xar ji naa ñaar suñu xar bu gine suñu xar bu gine it ngir si dara mais sara bi li am mooy xar bu létt dara ci xar bu la bokk su fekkee xanaa dafay def atasarru bibni kon xar bu mën naa dara su ko defee xar bu nekk gox bi kon àddina itam mën naa demoo ci xar wala wali saa'iri dunya ak nekk ci àddina bi yëpp di àddal maqsad ci bi la jubluwaay ndax nit la ko xam ne ñun jamono ñëpp jëriñu nañ ci moom loolu moo tax jamono ndamal àddina bi lépp la ñun àddina ñëpp jëriñu nañ ci moom loolu lañ doon wax mu ne ban li fi nekk farafan lay wax li sama waati ñaar asamaan yi xam nga laa yëre kowe mooy li am ma ibnu naafir ndam la sax ci asamaan yu kawe yi nekk min haate tukkee ci asamaan waatu noonu la roxo roxo ndax ci asamaan ci la roxam wàccee dikk alam bi ndam la ci dara ndax li nga xam ne dara mooy ma xarwi la sa nekk ndam ci xarbu xarbu nekk ndam ci suuf si li am mooy say ibnu naafir ndam la sax ci asamaan yi ndax roxam ci ci suuf su ko defee ne asamaan su fekkee day demoo ci ruux gu xam ne ruux gu sell gu jëfoo dikk ci suufi balaa ibnu nasirin di xam boo fekkoon ne mu am ay ruux yu mu daan demoo yoo xam ne ñoo gën a sell ruux ak ibnu nasirin mooy arwaxul ambiya ak arwaxu sahaabati kon nag kon asamaan ci asamaan ci lay amee uluw wala ci lay amee majju te uluw bi ak majju bi de doxoo ruuxu bu sell ci moom rek di ci suuf kooku du neex xam waaye nag Ibnu Naasir su fekkee moom dun moo sos ci daange ji fa ko fi fekk yi nag yokk moom mën na koo def mën na ko jëlee yokk mën naa xamee ci lu ëpp li fi neexoon benn moo fi ne woon ñaar dikk mu de ñaata ma benn moo fi nekkoon ci misaal ñaar dikk mu de ñaata du yokk la yokk bi ci ñaar la amee mu ëpp benn ñaar a fi nekkoon benn dikk mu de ñaata ñaar a fi nekkoon benn dikk du yokk ci benn la amee ñaar a ko ëpp yokk moom naa amee ci lu yées li mu naa amee itam ci lu ëpp li loolu moo tax arwaahul ambiya ak sahabati doonte duñ leen leerale du rooxal keneen ba asamaan xamee ndam ci ñoom itam beneen bu dikkee bu leen éesee ndam la mën yokkoo ba tax fal saalu nañ yokkoo kowe fal sa sa yokkoo kowe ñoom asamawaatu noonu laa min hu siilu naasire waxtaan jut te nañ si yokkoo tedd nga fal sa sa doon wal sax dat majaadatan waaw mu ne asamaan yi mën nañoo yokkoo kawe ci ruuxal ibnu nasir mën a yokkoo tedd nga ci ruuxal ibnu nasir gannaaw ruux bu sell bu wàccee ci ñoom seen tiraanga la xamoon nañ ko lu jiitu ibnu ci ibnu nasir lañ ko amee waaye doole ku ibnu nasir yokku ndam li la rek waaw sooy wax sax am yu gën a sell ruuxam bi waaye teewul rek yokku mën na ci amee waaw mooy li ma la yokku mën naa amee ci lu yëpp li ñu nekkoon comme ñaara bi nekkoon boo ci tegee benn day nekk ñett yéen bu baax la man li fi nekk sarafan li samawaati ñaara asamaan yi alwala yu réew yi kawe ci ngir kaana nekk na min ha de tukkee ca samawaati nola ruuhu ruuhal ci munafir fal saalu nañu ko kawe waxtaan ju danañ yokk tedd nga santu samaani mooy jantab jamono mu ne ibnu nasir mooy jantab jamono bu leeralul dingire yi leeral xol yi mooy def ci nit ñi yàlla kon mooy jant bii leeral xol yi jant boobu duy so inna samsan nahaari taxrubu bi layli wa samtul qulubi lay tastaxibu ah wane jant bëccëg mooy lan guddi jot mu sox waaye jant xol moom duy sox eh, jant jamonoom la wasaadu hoo mooy texe jamonoom dégg baax a baax jamonoom ñu ngi xamee ñu ngi gindee ko ci leeram su ñu ngi teddee ci barkeem wa malaadu hoo mooy wéeruwaayam ñu ngi muccee itam ci teraangaam dégg nga bu baax a baax mais sama mar la ko taalibeem ba waxoon yaa saahibal waqti yaa mansuuru yaa wasaru yaa sayxana yaa waliyallahi yaa umaru yaa talaatal yumni yaa saadal anaami wa yaa nuura samaani wa sayfallahi yaa qamaru yaa talaatal yumni yaa saadal anaami mooy ci barke la ñoo teddee la bu baax wa yaa nuura zamaani ci sa xam-xam la ñuy gindee ko wa sayfallahi yaay jàmbaar ji dim dimbale mandu di fi jëlee tooñ yaa xamaru loolu la ñu doon dégg nga yaa saahibal waqti yaa mansuur yaa wasaru yaa seexana yaa waliyallahi yaa omaru yaa talaatal yumni yaa saadal anaami wa yaa nuura zamaani wa sayfallahi yaa xamaru dinañ ko baax a baax waaye dama bëggee ci rawdu Samaa'il dégg nga rawdu Samaa'il benn téere la boo xam ne ñeent fukki ci kilifaay tariqa bi ñoo ci nekk ñaar fukki mi ci ñu soxna Tijaani ñu jamono wanteel ñaar fukki ci ñi nga xam ne gannaaw soxna Tijaani lañ doon liñ doon ci tariqa bi wala yaa ngi kii jamono ante sax tijaan gin ci pare lu war a dëkk yaa ngi kii ci gannaaw sax tijaan mu ngi dalee ci Cheikh Mamadou Fall gannaaw Cheikh Mamadou Fall Cheikh Omar la ci teg dina ko bu baax a baax ah dayale sax mu ne ma ay ma sëy na bu ak benn naar alaja bi lay ñax daf leen wéyloo woon raw du sama xam ne kenn du jël kilifa gi bind wéyal ci borom téere bi wax kenn jël kilifa gi wéyal borom téere bi wax yàlla yow naar bi njëkk ci Cheikh Omar naar bi moo daj Cheikh Omar te xarit la ñu soo bëggoon Cheikh Omar lool dal di jox bi mu jógee xamu waxandeem lu ubbi xamu waaye daal lu ma nga xam ne lu mu jël lu rëy dal da ko jox naar bi waaye ñu ne ndax nga ma rek ne ko dégg ma ma jàppaloon ci sama war ma koy am dégg ma ndax rek <laughs> dégg <laughs> ma ndax soo ma jàppaloon ci sama war ma koy am yu bëri moo dajee ci moom buur dëgg la waaw sëriñ dëgg la loolu yombul ah boole xilaaf ak zahir ak xilaaf loolu nag moom yàlla may na ko ko yàlla may na ko ko waaw seyxun lahu jamaal muhayminu rabbuhu amrayni mastaala bi jamihima wali mu ne sëriñ la bu xam ne yàlla mii boromam dajaleel na ko ñaari mbir yoo xam ne benn wali yu duy faral de ko dajale wa huma alxilaafatu fi dawahiri walxilaafatu fi lbawatini bintifaa il mu'tili mooy amee xilaafa zahir ak amee xilaafa batin loolu jafe-jafe la. qad kaana fi tibbil quluubi xalifatal qadmil qadmil mumiddi muhammadiyal manhali ndax buy ci wàllu tarbiya amul werante ne xalifa Seex Tijaan dëgg la wa xalifatan lillahi fi idraa'ima sara al ilahu bi sarahil mutanazzili gis nga baax a baax buy ci wàllu sariya bi amul werante ne buur dëgg la xilaafa xalifatullahi la na ci karamaat am jamono bi muy doon lii bu bëccëgu weeru koor xam nañ ko dinaa ko na ci karamaatam jigéen ñaare bu amee doom dana am tilim yi mooy jur ni juddu doom waaye mu ne karamaatu Cheikh Omar eh, ma ne su ko lim mu ne waaye dama la ciy tuddal juróom yoo xam ne moom moo ma ko wax ne Cheikh Omar bu mu ne moom moom moo ma ko wax. dinañ ko baax a baax waaw ah. dinañ ko bàyyi noonu loolu day na wax. danañ ci bàyyi danañ ci bàyyi moom boo demee ci tóore bi da nga ko gis yow maa fàtt na da nga dem ci tóore bi waaw dégg nga dégg nga mu ne samsu samaani mooy jantab jamono moom ibnu nasirin wasaatuhoo mooy taxeem wa malaatuhoo mooy wéruwaayam wajatal maxiili mooy koom ak beekoor waxun yetul mustarsili mooy koom ak aji sàkku xont mooy taw ak beekoor wajatal maxiili mooy taw ci jamonoy beekoor waxun yetul mustarsili mooy koom ak aji sàkku xont mu ne yërmande la ci sama borom moo ko fi indi itam pour mu nekk xeetle ko kaay ci ñu loruñu fa dëhru layluhu guddim wa naharuhu jamono te guddeeg bëccëg yëpp laa wax nuurun leer la min nuurihi tukiitu leeram mu ne jamono bii muy dundu ak may la ci mayam gi leer la ci leeram gi mootin leer gu daa ji joxe yadal mutaaffiti loxool aji mokku mokkulu mu ne jamonoom leer la bu tukkee ci leeram jamono leer la bu ko dégg loxol nangul ko mooy borom jamono hmm. ah, waawam ci jamono mooy waaw hmm. déedéetam ci jamono mooy déedéet hmm. xam-xamam mooy gindi ñun jamono barkeem mooy taral ñun jamono kadangam mooy musal ñun jamono kon nag mooy borom jamono jamono lum ca ne waaw wala dana xam lum ca ne déedéet danañ ko xam su ko defee na yow ñu naan la sa waaw mooy waaw mu ànd lala ci firi wut na dangay mën a xëtt dogal firi wut loolu gis nga yàlla buur la ne lu ko neex waaye dafa baax te ku ko neex mu sagal la boo dee yaa ngi wëliwu sàngam mooy borom jamono mi tam waaye diw sàngam lum nangam nangam noonu la demee rek pour yow ñëwee loo ñaan dana am sama borom moo lay terale ñaan loole ci noonu la bum na ma fale loolu waaye mënoo si dogalu yàlla dara waaw pour yow ñëwee loo wax rek mu jëriñ sama borom moo lay terale wax loole ci lum doolal njëriñ rek waaye lu mu dogalul moom du la ca boole loolu lay def rek waaw boo ne waliyu sàngam am na sañ-sañu sàngam sama borom moo koy suturaal da ko sagal da ko yëngatu loo ci lu dëppoog dogalam bi loolu rek la waaye da ko bëgg loolu li nga xam ne dogal nga ne dana ko am da ko ñaan loo dogal nga ne dana ko faj da ko boole ñi nga dogal nga ne dañ jëriñ loolu rek dogal yàlla moom kenn ko xëpp amul hitte yi kenn mën na ci dara déedéet amul yëngatu kenn ku ci man dara moom buur la rek lu ko neex mooy am taala ay yëkkoona bi mulki yi mën a yuridu di def bàyyi xel la dégg waaw naam mu am dëgg ko ko war a kenn kenn la nga def wane alors li mu mën du ko joxe wax dëgg yàlla moom rek moo koy moom waaye lu mu jox di dina muy may rek. loolu ñaa ngi woon sàngam mu saxof la yàlla ko jox sañ-sañam sañ-sañ lu muy yëngatu rek muy loola firiwut ne moom dafa doon dara ci nguur ak sama borom déedéet firiwut ne moom dafa man dara ci dogali sama borom lim do rek mooy yàlla ko teralee da ko yëngatu baax na ci su baax la nit waxee yàlla nga ñaana loon am na ah nga sant yàlla rek xam ne yàlla moo la teralee ñaan loo rek soxla bu nar a fay su la waxee yàlla ma la tawatoon daal jaama tàkk ah nga sant yàlla xam ne yàlla moo dogal ñu la tawal lu nar a fay bu dafa ben benn sëriñ dajeeg attaque bu baax yi waaye nag sëriñ bi am man de waaye sama soxna dafa tukki te bëgg mu ñëw te ah daga ji de bëgg naa ku ma ñaanal de sëriñ bi nag waaw baax na ma ngi déglu loolu la nga tawat maa ngi soxla bi kenn ku nekk ñu ko gis bañ toogee ba ci déwén la waa ji muy gis sëñ bare na ko man daal bu ma xaagee fan yow teewul teewul teewul laa ci tey suma soxna si dikk dikk na de moom kay ñu ngi sant bu baax mu ne ko ah man de sama kos fa la nawet jërëjëf bu baax a baax jërëjëf bu baax a baax li lay xamal ne mbiri mbiri yàlla la nit ki nga yàlla na mu góoraam mu ngi amee ci peggam loo xam ne mënu ci dara mënu ci dara te yow da ngay tawat xam koo lekk ñoom jublu ci saafara ko yàlla mayee la wér ci ñamam te moom mu ngi amee lu koy def mënu ci dara <laughs> dara day am wala nga tawat xam koo bokkat jublu saafara la ci bokk ak moom sama borom defal la dajal nga am saafara te moom mu ngi amee wér di yu mënu dara loolu mooy xamal ne mbir yi moom nañ koy delloo ci yàlla ñi wat ndekaatul guddi laaj lépp loo dégg ñu dugal na si tam waaw da nga xam ne ci yàlla nga ko xam da ngay xam ne sutura si waaye yàlla moom moom la rek buñ naan diw sàngam lu mu dana xam lu mu wax dana jëriñ ko mo ak moom nangam bul foog ne ndax ko man dara ci dogale yàlla yi sama borom moom mooy sagal da ko teral bañ di ko ñaan loolu ci soxla wum bañ di ko boole kum na mucc moom njëriñ bañ di ko wax loo ci loo xam ne na mujj lu baax gis nga wax naan an an na mujj lu bokk lañ nga bu mu ne nag loolu yàlla defal na ko sori jamono te yàlla defal sutura lu mu wax rek loolu dana yëpp nuurun leer la min nuurihi su fekkee leer ak mu naasirin moo sin leer bu daa ji joxe yadal mutaabidi loxool aji mokk mokkulu hatta tawahama ba defle wuuna moom jamono sama ummaatin mbir moom muy juróom-ñaari yaay mooy juróom-ñaari jigéen ñu ñu mën a am doom hmm. ummu ummaatun wala ummuhaatun ummun yaay ummatun wala ummuhatun waaye ummatun xeet du am ummatu umun rek lay am dégg nga ah bis baat boo gis taw taanis mujj rek dana am demul mu am nasi salim su mayee baat ab saatu demu takk si rek lay am si yaabu rek la ñuy wax ak baatu ummatu demu takk si rek lay am su ma ñëw la ñuy wax ak baatu sabatun tuñ jamu takk si rek lay si baaxun la ñuy wax su mooy nag xëy na boo jëlee si baar rek war na mën a am jamono waa si salim danoo taamu jamu ji si baatu ummu nag dañ ci defaa man lañ ci bañ a defaa ñu ne ummaatu dégg nga waaye ummatu moom ndu ko jamaale ummaatu hatta tawaxama ba mu dem lewu moom jamono sama ummaatin mbir moom muy juróom-ñaari yaay muy ay jigéen ñu am doom su wit na yooyu sayloof la wañaatum nasrin su wit na yooyu sayloof na leen bi samati abudin ci juróom-ñaari jaam min ruumin tukkee di ruum mu ne ibnu nasir ni moomee guddi ak bëccëgam yi bis bi juróom semaine bi juróom-ñaari fan la fan bu nekk guddi la ak bëccëg te xam nga layla mu annas la naar mudakkar la dina ko baax a baax layla dafa mel ni layla bu ne atab jeebeer ñuul la naar bu ne nekk abdul roomi su ko defee juróom-ñaari bëccëg yi da juróom-ñaari jaamam yu góor yu moom juróom-ñaari guddi yi da juróom-ñaari jaamam yu jigéen yu mu jël jaam góor bu ne boole ko jigéen xew-xew yi nag day jalwati ñu mel ne ñoo dencante xew-xew yi day ni moomee jamonoom xam ne lu ñu wax rek mooy am dafa mel ni guddi gu nekk moomee lam la jaamam bu jigéenam la bëccëg gu nekk jaamam bu góor la mu jël jaam bu góor ak bu jigéen boole leen xew-xew yi mel ni mooy li ñoo gis de mu boole lépp moom jamonoom daal lépp lu ko yàlla yëkkatuloo rek loolu fil kainaati ba ma yasau saau ba ma saau yaqdi nit ñi ko di tasarrufuhum fil kainaati ba ma yasau saau ba ma saau yaqdi amu nit ñi ne ko hatta tawarhamu ba mu dellu saba ummatin doom muy juróom ñaari yaay la wooy ñaar ci mu maasirin dafa mel ni juróom ñaari jaam yu am doom te biñ ñëwee saytu na leen jëf sama si aw ko jëm juróom yu góor ñun loolu lañ ko koy jëf. yàlla man li ma lay man doomu naa fi liggéey tëj doomu ko leneen bi muy tàgg daal lu mu jàng na waaw man doomu damay jàng rek waaye man doomu naa fi liggéey tëj ah doomu ko nag maa ngi lay yàggal kaw nii si war rahmaani wal Mustafa man kaana saadiqan min al ixwaani yufsidu baytiya madal azmaani maa liya fil kawni siwa rahmaani awal Moustapha wa Ahmad ak Tijaani waaw mbir boobu rek la nekk أما الركاب مسرقا فعجزت منه shamsin tusarriqu fawqa dahril fasadi hatta bada li annaha shamsu duha dahabat li matla'iha al-ajalli al-as'adi wajadan jala fil gharbi maqlan fantaha للشرق رائح مثنه والمغتدي ولي قوم aaba nahwa malikihi mustahdisan lilhaadi xayra muwaffidi fa ata bi mansuri lwilayati saniyan aw fa biha mimma ata badin badi mu ne samma noskaal na moom sayid ibnu nasirin arrikaaba gawar yi mu ne defal na gëlëm yi nopp ka de pour aji Makka musarriqan mbiram mu daa ji jublu sar boo ci suñ xar gu gile jëm fenk génnam comme de jant bu fenk mu ne faa jibtu ma hiimu min samsin ko jant tusarriqu ba gën a jublu sart fawqa dahril fatt di ci kaw xàll bi mu ne ma hiimu lool nag ci jant bu fenk jublu fenk tey dox ci suuf si ma yéemu ca lool xanaa fa doxaatu xanaa fa doxaatu ci seen xanaa fay jant ak dëgg dëgg loolu la bëgg dund ci xel yi waaye ak ñu piñoo ne léegi jant rek kay jublu a da dox ci suuf si ko amul lu ñëw tumarankel waaye dama bëgg dugal ne xëy na sëriñ bi daal fa sottee ko jant ak dëgg dëgg mu ne sax laaw dafa nos gi war jublu penku ma yëngu ci geste boo fenk jublu penku tey dox ci kaw suuf si ma istihaara mu rasaha ah dama mel ni daal dama bëgg a fàtte ne ak nit ku ñëw ne de léegi jant ci lay wax geste dëgg dëggal ci lay wax xeet istihaara bu balaaxa la wa istihaara mu rasaha wa jàng bayaan dana ko tànn lool wala ablahu tarsihu is mabnaahu ala tanadi sifira dawahu loolu jëfandikoo nag <laughs> wax dëgg yàlla kay nit ku ne nit ku ñëwee léegi def sa kay dañoo si kooku jublu pegg la déglu tumaranke moom xanaa taw bëgg woon nga jàpp ne dafa damaa dul nit waaye fa day jantam dëgg-dëggal waaw bu naa jant boo fenk jublu penk di dox si suuf si ah man de yéem na ma jant kay bu fenkaa comme daan soo yàlla jublu jant kay bu fenkaa dañ ko daa tiir man de ah man de ah xam nga daal wala mereka danga ko daan jël waaw tamanakana arrikaaba gawar yi musarriqan minhum rajulu masrin sarq fa ajibtu mahim min samsin ci jant boo xam ne tusarriqu dafa jublu penku fawqa dahril farfadi ci kaw àll bi hatta bada ba feeñ lii ñu hal ma ne annaha moom samsu duha jant yor yor la dahabat dem na li matlaha ci fenku wayam ala jëlle ba gën a màgg ala sandi ba gën a yëkkateeku waaye gannaaw gi lay gis ne ah jant yor yor la ci booru penku bi nga gis te duy kowe dëgg-dëgg day indi leer gu doy du yor tàngoor wi gétil nit sëñ bi nag bu baax man jant la parce que yaa ngi koy seen ci penku te itam duy kawee dëgg-dëgg lii moo waral affaire bi jëm penku te nekk ci. daaba daaba feeñ lii ñu àll ma ne xam naa yaa moom samsu doxaa jant yor-yor daaba dem na li mat na yaa ci penku wayam ala jël li ko gën a màgg ala saati ko gën a yëkkati. wajadan te taw jalaa xub wuññi na mu bil garbi ci sowu mahlan fekkoor fantaha dante jublu li sarqi jëm penku rayixu musni yi niiraw waraaji gont wal muqtadi ak niiraw waraaji xëy ak itam yàlla ku andi sarqu ak garbu war a jëriñu ci moom dem njëkk a feeñee ci garbu ba ñoom jëriñu nañ ci moom suba nag pour na soog ko jëriñee fi moom moo waral mu ne tey aji Makka fekk yoonu yëpp yërmande la ci ñi muy jaar ak yëpp yërmande la ci ñi muy dajeel ak fu muy nekk kon taw la bu xam ne dafa tawee ci xarbu ba bee ko war dañ xiin wa jëm ak moom ci sarku te soo fay naaw bee ko war dañ wajadan taw la jëla bu fuññi na bil xarbi ci soxu maxlan bee ko fantaha dal di jublu li sax sa jëm penku raay xaw mos na yee niiram walaaji gont wal muqtadi ak niiram walaaji xëy. wa waliyu qawmin tey kilifaat aw nit aaba ku dellu na naxu malikihi bu wàllu buuram mustahdisan daa di xeexlu min haa di kóolare xayra mu wasfinin gën ci aji gane wala ndaw loo xam ne buur a ko fi teg mu nekk fi biit war a dem ci ki ko fi teg gaara liggéeyam awul fa yokk loolu la ñëw na fii ci xarbu defoon nañu jam jamu yàlla te di leen waaye itam ci sunnatu nabi sallallahu alayhi wa sallam kon ko fi nekkal yàlla yonentam bi la gis nga bu baax dem na ba ca kanam mooy day def ziyaaratu baytillah ak itam ziyaaratu nabi sallallahu alayhi wa sallama ziyaare boo xam ne eh, dafay ànd ak yokkute ci ñoom ah day ànd ak seen yokku ci yàlla yokku ci taw di barke yonent bi noonu waaw waliyu qawmin kilifa ak aw nit la aba ko dellu na naxwa maliki wàllu buuram mustahdisan day aji xees lu li danga di kóllëre xayra mu wafidin gën ci aji gane waaye ci sababu loolu ataati kee na mu bi mansuuril wilayati ci mansuurul wilaya mansuur mooy leer leetar buñ kaste mansuur mooy kitaabun lam yuxtam saniyan mbir moom mu daa ji aw faa mbir moom mu gën a matal bi haa ci wilaay min ma ci li nga xam ne ataa dikki woon na ko ba di abadin jële jële jële mu ne loolu moo tax andi aat ne beneen mansooru wilaaya bu xam ne moo gën a mat ba mu njëkk ne addee mooy hakki ci leen di yokku ci yàlla ak yonent bi yokku bu feeñ boo xam ne dafay jural yokku ñi nga xam ne ñoo ànd فإذا أتى دكين منصوب الولاية منصوب الولاية ثانيا برمم مراد نار ومنصوب به أو برمم مكان مثل فيها ولاية مما تبنى قبل أتى دكين وقال أبدين بجلب الجلب وقام مقامات الهدى وسمت به لمقام إبراهيم همة منهدي waqadaa ilaa baytil masaafi bu aydama adhaa masaafan lil wufoodi summadi waqadaa labaanul garbi minhu aadilan wa alaa labaanul sharqi asnaa min jadi fal garbu musbaanat musbaasat bihi aydin nawa ka muxibatin muswaddaat lam tahjudi wa kaannahu musbaana jafnun baana anhu nawmuhu aw sayfuhu min masadi wa nahaaruhu musbaana laysa bi abyadin wallaylu id waafaahu laysa bi aswadi mu ne wa faa matal na moom sayid ibnu nasirin maqaamaatil huda maqaamaay njub yi juróom ñeent yi ñuy wax maqaamaatul yaqiini xam ne ku la raw ci xanaa ji ñoom la la raw waaye kenn mënul baax ba génn leen mooy dafa leen matal ci xam leen matal leen itam ci mel leen ah daf leen dëggal daf leen matal taxaquqan matal leen itam dawqan a masal di yëkkate ko bihi ak moom himmatu manadin hittee buur li maqaam ibrahim jëm ci maqaam ibrahim matal gi mu matal maqaamatul yaqiin tey borom hitte gu kowe moo tax mu buur ne mu ngay dem taxawi ci maqaam ibrahim wa matal na mu maqaamatil huda maqaamay njub yi fasa masal di yëkkate ko bihi ak moom himmatu man hadin hittay buur li maqaam ibrahim jëm ci maqaam ibrahim waxata mujj na moom sayid ibnu nasirin ila baytil mataafi jëm ci néega wët ba masdar mimi at masdar mimi la bu ay dama ci gannaaw bu mujjee at bu ay dama ataa ci gannaaw bu mujjee mata ban de wëduwaay zarfu la li bu ko di ñaal gan ni ak summa di ñu dafa yëkkat jublu si mu ne barabam bi mu doxee rotuwaay jaamu yàlla yi jaami yàlla ñi da ñëw da ca defe rooti ci itam bu kowe mu doon ko kam ne xam na ne man da ñàkk soxla ci yokku ci boromam ci la itte buureeg moom mu dem ca bët lay haram pour wër wa wa waqadaa mujj na moom ibnu nasirin ila baytil mataafi jëm ca néegam wët ba dem na ci alkaabatul musarrafa pour ne na ko watte yàlla tax bu hay dama at haaj ci mu mujjee masafan di waruwaay ci gannaaw bu mu doonee ku ñoo ni lu di ñaax gan ñi ak summa di ñene way jublu xam ne boo demee ci buntam daal te la saqet rek mooy la arab bi waxoon ne lan li muxtalifil haajaati jamoon bi baabihi soo demee ci buntam ba mbooloo mu takku nga fay fekk daay soxla yu wuutee boole leen indi leen ci fa haada lahu fannun wa haada lahu fannu kii soxlaam lii la kii soxlaam lale la li muxtalifi alxaajaati jamoon bi baabihi fa haada lahu fannun wa haada lahu fannu wa lil xaamili al oliya wa lil mu'timi al ghina wa lil mudnibi al ghaffa wa lil xaa'ifi al amnu ma te ko de mbiram dana jag ba nga koy bàyyee ko kon Ibnu Nasir dafa mel noonu tey borom itte bu kowe su ko defee yàlla jaral ko itte itte bu kowe ak jaral bu ko yàlla jaral kenn ku ne mu ngay delluwaat faxadaa mujj na bu kowe ak jaral bu ko yàlla jaral kenn ku ne mu ngay delluwaat faxadaa mujj na لبان الغرب دنب غرب xantelan daa ji yu xal minu diinu nasir mu ne duñ ñu joxee gannaaw moom sa ibnu nasirin nit ñu wéetalee ñun waa xarbu dafa mel ni jëmm joo takkoon caq caq ba dante bu mbeerku mu ne doxam yu xal bi waala kowe la banu sart dana sart xam naa min dedin gën jaay kowe wurut xàggam sarta nim nekkee njëriñal waa sarta ndax dañ gindeekoo ca xam-xamam ba ak nañ amee tiraange ca barkeem ba dafa mel ni rek ñoom amuñu woon takkaay waaye takkaay dafa mel ni ci mujj amul woon takkaay xam na takkaay bu gën a foor faxadaa mujj na labaanul xarbi dana sow adalan daaj yuqal min hu ci ibnu nasirin ñu joxe gannaaw wéetal nañu waala kowe la ban sarte benn sarte as naa min jëtin gën bal xarbu xarbu muj paasat waxtu watte xeexee bihi ci ibnu nasirin ay din waa loxoy sori ka muxiibatin mu ngi mel ni jigéen ja jëkkëram fàttu ju xam ne mos wattaat waxtu wam tàggoo xee lam tahjud yandooru mu ne xar bu ibnu nasirin génne ne day aji màkk ne moom ngir ni ci réew mi yëgee wéetaay dafa mel ni jigéen joo xam ne soppe bi gën a jege xonam moo ko tàggu jox ko gannaaw mu dëkkee da ko xelaat ba man da nelaw te xar bu itam daa say ibnu nasirin dem na waaye dafa mel ni dafa yóbbaale xol ñëpp ko namm ñëpp yëgle daay da mooy li mu bëgg a wax rek fal xarbu xarbu musbatat waxtu wa texeexee fii siitu nasirin ay din na waa loxoy sori te muxibatin mu ngi mel ni ku jëkkëram fàttu muxiba mooy jigéen ju ko jëkkëram nexut laa tadxuloo alal muxibaat xam nga ñëw na ci hadiis mu ne kër bu ko borom newut ba leen fay dem mais wax rek kër bu ko borom newut ba leen fay dem sax bu baax a baax jëmee ko bu baax a baax aten to xolu alal musibaat ma ne kër boo borom ne woon ba dem bàyyi na ka musibatin mu ngi mel ni ku jëkkëram faatu ko xam ne mu waxtaan waxtu wam tàggoo lam taa jóg yandooru wa ka annahu daanaka xarfu musbaana waxtu wa ibnu nasirin faccee jaf nun mbatam bët la wala nga ne nun mbatam jaasi la mu xam ne baana facc na han walis ko naw mu woo nelawam soo ko biree mbatam bët jinaasul isarati aw day ko woo wala jaasim boo ko biree mbatam jaasi min masadin ngir njàqare ibnu Naasirin daal bi mu joxee gannaaw xarfu demam gi fi mu àgg ci xol yi ak namm gi ñu ko namm ni mu méttee yàkkamti gi ni mu méttee boo xoolee réew mi daal dafa mel ni mbatam bët muñ dindi nelaw ya réew mi kenn nelawatu fi dafa mel ni mbatam jaasi muñ dindi jaasi ja réew mi kenn mën a tubee topp doo dara xam nga mbatam jaasi bu ca jaasi newul wax dëgg yàlla du dakk dara mbatam ba itam bu ca nelaw newut wax dëgg borom amul jàmm soo rek moo ci nekk réew mi nof la yootuñ te benn lépp leen safar nekk la fi mu nof rek wa kaannahu daanaka xarku musu baana waxtu ibnu nasirin fa cee jab nun mbatam bët la mbaa nga ne mbatam jaase la baana moom facc naanu ci am noom woo nelaw aw wala jaasim min masadin ngir njàqare wanaaruhu bëccëgu arku musbaana waxtu wa ibnu nasirin bëccee laysa bi abyadin duumu aji leer ba mu ñu joxee gannaaw ba léegi bëccëg leeratut ba ñaari jàpp bëccëg leeratut bëccëg leeratut ba ñaari jant moo amoon buy leeral xol yi ak buy leeral dawahir yi bii leeral xol yi nag moo ne yereñ te bii leeral sawaahir yi doyut mooy tax buñ ne ñu ngi ci bëccëg yi yëguñ leer moo tax koo gis ñu rek li muy wax mooy la bu tayyibil mutanabbi mu ne fa laysa taami'ata shamsayni qad xab bëccëg leeratul ndax ñaari jant moo amoon buy leeral xol yi ak buy leeral sawaahir yi bii leeral xol yi nag moo dem ne yereñ te bii leeral sawaahir yi doyut mooy tax buñ ne ñu ngi ci bëccëg it yëguñ leer moo tax koo gis ñu rek li muy wax mooy la bu tayibil mutanabi waxoon mu ne fa layta taaliata shamsayni qad afalat mu ne ñaari jant fi ne woon waaye lante woon biñ janoot nii doon bisoo te bisoo ne bi salayta saaniata shamsayni qad afalat walayta ghaibata shamsayni lam taxibi waaw ne lan te woon bisoo ni biñ janoon nii doon bisoo bisoo nebi afalayta saaniata shamsayni qad afalat walayta ghaibata shamsayni lam taxibi walayta ayna allati aba nnaharu biha fidaa ayni allati zaalat walam ta'ubi xelante woon bi bi bi bëccëg andi nekk jot ci bi dem bëccëg andi wu ko ah walayta ayna allati aaba nahaaru biha fidaa ayni allati zaalat walam ta'ubi jërëm bu baax a baax a baax kon ku mën a wéy la ba ko delloo waxam day am ay xeeñ takraar yoo xam ne du du yàq dara ci usloobam boo koy liir kontaan rek ngay def dara fa layta taaniata samsayni qad tafalat wa layta gaibata samsayni